maa ngi leen di fay di nuyu ñuy seetaan ñëpp di baalu ak ñëpp tey baalu ak ñëpp di ñaan yàlla mu bal ñu. waa xam nga nit wolof dafa ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk li nga xam ne ñoom ñëpp a ko bokk kenn waru ko bokk loolu tax saa yu réew mi woote ci bëgg-bëgg réew mi ak askan bi dañuy wuy ji ndax loolu rek moo ñu ñëw ñun ci askan wi lañu bokk. te lu dal ci kaw askan wi dal na suñu kaw luy mbébati askan wi suñu mbébét moo tax biñ ne ñoo lànk dañu bëgg wax ni ñoo lànk yokkute courant ndax dañu digoon ni dana dem jamono yoo xam ne courant bi dana yomb lool lool lool ndax dana am meññeenteef yu suñu borom yi def ci réew mi buñ ko génnee daañ ci mën jëfandiku yëg ni yokkute la ci réew mi ba jamono jooju ñu gis ni Sénégal mi ngi jaay même courant ci bitim réew te wolof ni bala ngay laax jaay bala ngay laax jaay laax lekk la ngay jaay kañ bitim réew di ko yokk sa koom mais jaay ko sa réew yeewanal ko sa réew ngir dund bi ak nekk mi gën a rafet gën a laab lii rek moo waral daje bi moo waral aussi xeex bi nga xam ni ñi nekk ci ñoo làng ñu koy def xeexu jàmm la xeexu salaam la xeexu dëkkin ak nekkin wu rafet ak yombalal jumtukaay yi nga xam ni askan wu nekk da ko soxla mooy courant mooy ndox non il n'est jamais trop tard pour bien faire ndax xëy na bu xeex bi amuloon sax naam am na yokkute yokkute bi doon na gën a tar xeen bu xeex bi amuloon yokkute bi day wéy di dem donc xeex bi lu am solo la xeex pour wax li ngay xeex lan la xeex aussi pour wax ni am na yeneen anam wala yeneen yoon yoo xam bu ñu fa jaaroon lii mun na ñàkk loolu mooy sababu xeex ndax xeexuñu pour suñu bopp mais duñu xeex pour askan wi ndax courant kër goo dem dañ ko fay utiliser mais askan wi nañ leen yërëm nu ñuy dundee metti na tar na yërmande ak laabiir dafa jot ndax loolu la ñu digoon loolu la ñu jaayoon loolu la ñu waxoon tamit moo tax wax dëgg yàlla. ñuy bay suñu waa ci fànn yi ñu féete pour bokk ci langu askan bi bébét boobu pour buñ ko mënee wàññi daal baa ñu bàyyi ko na mu meloon ba jëmmi jamono moom mooy lii askan wi bëgg mooy suñu bëgg bëgg waaw xëy na seen fekk si nag war na gën a mën a yaatu gën a law waaye yàlla day def ci jamono walla ci askan ñoo xam ni bu xeex jotee ñooy xeexal askan bu jóg jotee ñoo leen di jégal ci seen tur doo bàyyi ba askan wi yëpp maa si jóg ci taxaw nga door na leneen def xeex day am ñuy jiitu am ñu ci topp bu yàggee ñooñ daañ leen fi fekk si àdduna noonu lay tëdd mbir du am rek ñëpp jógandoo xam nga ay aji gëm lañu dañuy dem ci jumaa lu julli mais ba lu ñoo julli am na ñuy woote kaay la ñu julli nit ñi ñëw par benn benn par benn benn ba jumaa ji fees waaye doo bàyyi ba jumaa ji fees ngay soog a nodd di woote di li xam di woote kaay leen bi noonu la doon ñun ñooy nodd wax askan wi lii dañuy xeex dara dara taxu koo jóg lu dul bëgg-bëgg askan bi ak yërmande ci askan wi dana am ñu wuy bi su njëkkee dana am ñu dëx mais bu yàggee askan bi nga bëggoon yëpp daañu maase xam ne lii ñuy xeexkat seen njëriñ ñu fekk ci sa xeex te jàpp naa loolu moom mooy solo xeex man dama jàpp ni Sénégal comme ni ko constitution bi waxee te nga xam ni ci la ñëpp war a dëxëñ noonu la waroon dox ndax préfet yëgal rek la yoon wax ni moom lañ koy defal information koo xam ne dañ lay yëgal boo yëgee yamal ci yëg bi te bàyyi ñi bëgg manifester manifester loolu mooy démocratie kër yi sax noonu la war a tëddee du may borom kër bi rek la ma neex rek mooy am ci kër bi déedéet sa soxna dafa am baat ci kër bi sa njaboot dañu am baat ci kër gi jànq bi nga bind ci kër gi sax am na xalaat ci kër gi may ko fu mu waxee xalaatam xëy na la mu lay wax moom mooy njëriñu kër gi waxuma la ak réew mi nga xam ne nag ñun ñëpp ko bokk kenn ku ci nekk xalaat ba nga am mooy xalaat pour taaral pour rafetal pour muy gën a yéwén loolu bu ko réew amee dama yaakaar ni sag la doole la sax ci réew réew yi amul loolu ñoom ñëpp dañu ndaat say kon bu yàlla defee suñu réew mi la ko Senghor daan Sénégal pays de dialogue loolu nekk suñu mandal ndax ndam la ci réew mi ña war a dégg dégg te bu ñu déggee jëfe ngir askan wi te yàlla rek tax man loolu laa gisee démocratie noonu laa gisee bébé di am ndax nit ñëpp mënuñu bokk gis-gis ñi dañuy gise nii ñii gise nii mais bu ñu waxtaanee rek jubóo te loolu mooy li nga xam ni moo war a nekk man nit laa koo xam ni dama fonk kilifteef waaye dama fonk dëgg te yàlla rek tax loolu maa ngi koy ñaawlu ndax journaliste liggéeyam lay def même ñi ñëw ci marche li ñuy def ayul dañuy soññ rek kilifa yi ñu leen yërëm leen dogal bii ngeen jël bu ngeen ko tegee suñu kaw dana metti lool te ñoo bokk réew mi xool leen nu ngeen ñuy jàppale dimbali ñu pour nekki mi gën a rafet loolu ayul te réew mu nekk war na fa mën a nekk waaye bu fekkee ñii manifester ñi ngi manifester nga ne kenn du ko fi wax kenn du ko fi defe ñay liggéey nga ne leen du ngeen ko fi defe ñëw bundu xataal leen teg leen fitna du jàmm rafetul jekkul jàddu tere terewaat bi sax moo jekkul jàddu mën naa gëm ni mën nañoo bind mu am jamono joo xam ne la nga ci jàpp ni pour mu mën a nekk ci dal ci jàmm jàppandiwul nga ni leen tey di aaye na leen waaye beneen yoon bu ñu bind la nga leen aayewaloon démb nangul leen ko tey waaye dëkk ci euh, bañ a nangu dëkk ci bañ a nangu day am leneen lu muy nuru te jaaduwul nag ci Sénégal surtout boo xoolee jaar-jaaru réew mi ba ñu dem ba bind ko ci constitution le droit à la marche dem ba président jiitu réew bi fi nekkoon sax ni bu ngeen ku am lu waxuma la marche mais ne am na lu la naqari loolu kuy woote jàmm moo koy def ki bëgg jàmm nag war na mën a nangu loolu benn jàng rek gis loolu lenn lu nit def lu ñëpp man koo maase ni rafet ko yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam muy feeñ am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul àdduna yàlla bi sàkk lépp am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul waxuma la doomu aadama donc tournée bi muy def ña koy rafetlu ñoo xam lu tax ñu koy rafetlu ña koy ñaawlu ñoo xam lu tax waaye li am solo rek dama jàpp ni nit la doomu aadama nekkoon na ci nattu ba yàlla def natt bi jeex yàlla mi ko tegoon natt boobu moo jeexal nattu mais jaar na si as ba ngay nekk ci nattu ay nit ñëw seetsi si la ko xeex pour natt boobu jeex ñaan ci yàlla pour natt boobu jeex ñoo xam ne xamuñu la sax fajar ñu lal seen jaar di julli ñaan ci yàlla pour natt bii dal ci doomu jullit bi yàlla na ko yàlla tekki tekki waaw jaaduwul ci jullit ñooñu jaar ñooñu foofu yëpp ak yow jaaduwul bu natt bu jeexee ginnaaw boo sante yàlla julli ci sangu sang yi dem seeti ñooñu di leen yow de bi ma natt bi dalee gis naa taxawaay ba nga ci amoon gis naa aussi lan nga ci defoon maa ngi la ciy sant di la ci gërëm loolu mooy wàllu góor jaam bi sax dafa war di sant yàlla santal leen ma ma dolli leen ku la defal dara lu mu tuuti tiit na nga dem ni ko sant sëñ Abdou Lahad dafa daan wax naan merci de baat bu gàtt bi waaye ku deful dara du ko dégg te Khalifa Sall tourné bi ci kilifa diini ci kilifa aada yi ci kilifa ñi nga xam ñi ngi nekk politique dara lalu ko lu war ni natt bi ma yàlla tegoon de nangu woon naa ko maa ngi sant yàlla ginnaaw ba ma tegee natt bi tegg na natt bi yéen ñi ci amoon nag taxawaay ak kàddu pour suñu borom jeexal natt bi maa ngi dellu di leen sant di leen gën lii rek lii de ku baax wala ku bëgg lu baax wala ku gëm yàlla da ko rafet man de bokk naa ci ñi koy rafet xam man bu may wax ñu bari di ñaama dangay xutbaak wala sëy bi déedéet damay jullit di doomu aadama bu gëm torop yàlla suñu borom fi ñu toll ci doxu delloo njëkkal sant ak sargal lii am suma nag yàlla moo ko xam mais yéene bi nga xam ne mi ngi ci Xalifa Sall ma xam ko mu nekkoon ci moom démb ak bërki démb mooy doomu réew mi la am na cër ci réew mi te am na yéene taxaw pour ñu soppi xar kanamu réew mi pour yërmande gën a yaatu ci réew mi pour dal gën a am ci réew mi pour yokkute ak jëm ca kanam gën a am ci réew mi yéene boobu lu mën a am mu ngi ci moom mu ngi ci xolam bëgg-bëggam ak ñu muy àndal lay sotti nag suñu borom moo koy sotti lay am suba suñu borom ak xam buñ ci tolloo rek la ca war ci taxawaay ak ci kàddu incha allah daañu leen ko baax déedéet doomu aadama dara du ko fëral doomu gaynde dara du ko fëral doomu gaynde bu rëbbul rek daal di dee rëbbooy ba rëbb mooy baaxam jullit aussi sabab lu rek mooy adressé sabab lu leen yàlla mooy matal mooy àggal doomu aadama feeg yaa ngi dund dara jomb la dara mënul freiné sa àlla dëgmalal li nga dëgmal rek wàkkirlu ci yàlla te ànd ci ak ngor ak dal ak pas-pas suñu borom matal ko ndax borom xam-xam bi danaan yàlla kat bala laa wóolu ba jox la mbir yi mbete nga àttan yenn bi maa ngi jaar ci jéegu gaa yu baax xoolal yonent bi bu mu laa tuddoon awlu lan bi yaa natt bu nekk dal na ci kaw fanaan na ci xunt fanaan ci ay doj ànd ak lu nekk muy doj sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul nattu bu nekk dal na ci kawam maam limamula Laay natt bu nekk dal na ci kawam maam Alaaji Maalik natt bu nekk dal na ci kawam mais ñu dëgmal yàlla ni yàlla ak alxuraan yu dëgg rek muy sunu bis ba yàlla dogalee ñu añ tey jii añ nañu bëggee ci kaw épreuve la yàlla subhanahu wa di yëkkati ay ñooñu tubaab bi sax dañ ko wax c'est dans les épreuves que Allah élève ses hommes donc épreuve épreuve warul nekk gàllankoor ci doxu doomu aadama bu jëm ci yàlla au contraire dafa la war même dompe nga gëm ni lii yàlla fàttewul sama sang bu tëdd ba sëñ Cheikh Saliou dina dégg ñu naan bu daan toog bis lëm te amul natt danaan baadu yàlla daf ma fàtte ndax ragal yàlla la donc nattu cib jullit nattu as gor lay dal ab jullit lay dal bu la dalee nag nga jàng ci jàng ci xam ni yàlla kat am na lu mu lay waajal lii am suba yàlla rek ko xam lii am tey te ñu def ko moo doon doxu nemmeeku doxu ziyaara joxu jaajëfal ak gërëm ci suñu ay nawle yoo nga xam ne bi ñu amee natt bi taxawaay bañ ci am taxawaay bu ràññeeku la maintenant la cay juddoo wala suba naka la ñuy taxee wala naka lañuy ñuy yàlla rek a xam man dama baaxewul di wax loo xam ne àggaguma ci ndax wóoruma sax ndax takkusaan dana ma fekk ñu bàyyi ba. suba bu ñu yàlla mayee tal ak fekk la ca waram rek ñu baaxe ko askan ñu leen lii de la jamono ji laaj mu war a am mu am man maa leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal te di leen masawu ci li nga xam ne dal na leen ci keroog bi ngeen di def seen liggéey ci ànd ak ci ñoo lànk ñi nga xam ni seen taxawaay du lenn loolu wax ni def leen ndànk lii ngeen yëkkati pour dal teg ko ci kaw askan wi diis na loolu askan wi du ko àttan njàqare fitna rek lay jur ngeen jóg ci biir loolu pour yaatal liggéey bi def liggéey bi loolu leen ci dal dal leen ci maa ngi leen ci maso bu baax a baax a baax ñi ci am gaañu gaañu tolof tolof yal na yàlla saafara leen yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla yewenal seen liggéey yéen a ngi def liggéey bu am solo démocratie bii la lii rek mooy démocratie bi la yaatal liggéey bi waxtaane réew mi dox jàmm tey wax jàmm